Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf askan wi yëpp ubbi seen nopp di xaar kàddu yi war a tukkee ci jom Diomaye fay réew mi quotidien mel ni kuy xamle ana ci yenn ponk la njiitu réew mi war a àddoo ndax gannaaw ba ko RTS daa di xamle joriñam du njëkk di Ousmane Sonko daa dinay dëggal ni moom doomu njagañaaw bi bu dellusee ci réew mi dina yëkkati kon ay kàddu jëmale ko ci askan wi bokk na ci ponk yi nga xamante ne moom lañ koy xaare fii réew mi toll ci yenn anam anam la ñu ko fekkee wàllu politique ak tolluwaay wi coowal assemblée nationale ba ci sax li jëm ci li mu namoon a tas conseil économique social et environnemental waaye tamit au conseil des collectivités territoriales kàddu yu njiitu réew mi war a yëkkati l'info yéenekaay di ci àddu yi tamit suñu naataango yi di xam ne ni Ousmane Sonko ci boppam mel na ni yëgle na ba noppi ci yan ponk la njiitu réew mi war a àddu ndax jëwriñ ju njëkk ji moo ngay xam ne ni kon discours bi ci ñu ngi koy xaar bu njiitu réew mi dellusee ci gi mu nekk te dina wax ci yan anam mi bu ci noppee nag jëwriñ yi ku ci nekk ci sa wàll nga daal di indi ay leeral ba noppi ñu xam ne fi nga xamante ne ci lañu war a jëm gannaaw ba ñu defee jubanti gi ba noppi li moo tax lu le quotidien le quotidien di xam ne ni kon moom Ousmane Sonko ci boppam dafa mel ni ku xamle ba noppi kàddu yi nga xamante ne Bassirou Diomaye Faye njiitu réew mi war na ko yëkkati yéene kaay ma jàmbal jaan bi xuus ci leneen ndax nee na slogan jub-jubal jubbanti gi léegi dafa mel ni dafa bokk sax ci taarixu réew mi ndax nguur gi boole maatam ci li nga xamante ne moo jëm ci programme am njiital jëwriñ yi moo ni xamle ci bis bi le jour ndax nee na wuute lool ak tuuma yi nga xamante ne ñu ngi koy ngàll ci seen ndodd maatam moom mosuñu ko fàtte benn yoon yéenekaay bi li mu gis ci programme bi nga xamante ne Ousmane Sonko ci boppam tëral na ko ca diwaanub Matam ci bisub set setal gi dafa mel ni ku nekk ci ab campagne de séduction las di ko ci feelu ne Ousmane Sonko ca Matam goge dafa rek songu li ñu duppee bu Macky Sall ci boppam waaye kàddu yi nga xamante ne yëkkati nu ko ca Matam goge Vox Populi di ñu xamal ni moom jiital jóori ñi wax na ci lépp waaye moom premier ministre tuddul benn yoon déclaration de politique général premier ministre ba woon Amadou Ba fës ci xët bu njëkk l'observateur yéenekaay bi di wax ci mbëbëtu amadu Ba ngir samp parti politique am di feeñal nag ana lan moo waral tànneefu neuf neuf bi ak kàddu yi nga xamante ne moom jëwriñ ju njëkk ja woon war na ko yëkkati tey ndaxam ci Barthélémy Diaz les échos moo ni samp laaj ndaxam doomu Jean Paul Diaz bi dina bokk ci présidentielle 2029 bi bokk na ci li waral laaj bi sloganam Dakar bi ñu bokk bi nga xamante ne léegi dafa mel ni gën na ko yaatal dupeeko Sénégal bi ñu bokk Sénégal na mu xoolaat li nga xamante ne moom mooy pexewam muy stratégie minière Le Soleil yéene kay mi addu ci référentiel de politiques publiques moo ni xamle di xam ne ni premier ministre Ousmane Sonko moo ni fësal gestion phosphate bi ak Maroc mi nga xamante ne mën nañ koo lim ni royukaay réew mi quotidien lim na ponk yi nga xamante ne kon ci la jëwriñ jawoon Zahra Iyane Thiam daa di addu mooy lu jëm ci wàllu reddition des comptes déclaration de politique général bu Ousmane Sonko ba ci sax ëllëgu politique amadu Ba doomu Iyane Thiam bi daanaka bàyyul dara ci grand oral bu réew mi TV ci Sud Quotidien ñu ngay fësal taxawaayu orpailleurs yi nga xamante ne dafa mel ni dañoo fas bi nga xamante ne ci wàllub dakkal bépp yëngu-yëngu muy activité minier ci diwaanub Falémé yéenekaay bi duñu xamal ni donte nguur gi fësal na ci ab décret addu ci lu jëm ci dakkalub yooyu la activité ba atum 2027 teewul orpailleurs yi ñoom ñu ngay woyal seen yëngu-yëngu foofe ca diwaanub Falémé ca waaxub mbuur vox populi di xamal ni kon ab gaal bi yeboon ay clandestin ba fees del moo fa daal di suuxa lu toll ci ñeenti niw jot nañ ko fa gis ñeent ni ay candidat tamit mucc nañ ci muy ay rescapé ñu mujj leen a rawale ci hôpital Grand Bourg enquête moom mel ni kuy enquêté ci ëllëgu Aliou Cissé ci boppu équipe nationale bu senegal muy samp laaj ndaxam moom mii di tàggat suñu gaynde yi dafay bay am day wëyal liggéeyam ci équipe nationale bu Sénégal lii am ba am mooy moom mi nga xamante ne moo fi indi raaya bu njëkk ci Sénégal ci wàllu football mel na ni léegi digganteem ak supporters yi moom sagara ngay xeeñ ba noppi lépp li nga xamante ne équipe bi am na ko ni ay résultats yu bon ci ndoddam lañu koy ngàll mu mel ni ñu ngi koy méngalee ak jamono yi Joachim Low ba Didier Deschamps mi nga xamante ne tamit lu nu mel lay dund ak équipe bu France équipe bu Sénégal bi war laale ak Burundi ni ki tey ji Rewmi Sport di wax ni jongante bi moom fexe ba jubbanti li nga xamante ne moom la ñu gis ni ay ndëngte ci diggante Sénégal ak Burkina Faso lu nu mel sax la record yéene gisee ndax nee na Burundi Sénégal bu ñuy xaar ni ki tey ji ab waxtu la wi nga xamante ne gaynde yi war nañ ci yeesalaat seen xar kanam jàngeen jëf